alhamdulilah ñu ngi ci jàmm ça va ñu ngi ci jàmm tool yaa ngi euh, defe na daanaka ñu ngi ci tànk ñor nag ah, ah, euh, ah ñu ngi ci waxtu góob am nañu góob am ñuy taaxirlu ba nawet gi gën a wàcc ndax dugub mën naa ci amaat yaakaar euh, xam naa ne daal raxasul daal xaar hmm. waaw ah, raxasul daal xaar da nga dig ma saagu waaw mais ñaanal nawet gi barke rek non <laughs> xam naa ne daal ren daal boo amul ñetti boo amul dugub daal mun nga am ñebbe walla gerte ah waaw nga ma koo dig de waaw acca waaw yow fagarul rek ñetti at a ngi daal maa ngi toog di xaar waaw du xam nga horaire u Diofior fa muy taxaw fan yii dinaa la fa yebal <laughs> incha allah kama fa min waaw ah, hmm. <laughs> <laughs> a gindeeku ci li réew mi la mu yendook la mu fanaano Walf Quotidien xëyee na ko waaye yéen a kaay gii di Walf Quotidien dafa xëyee amal ji kenn xamul ci yan tànk la ñuy feccee muy jëm ci seen taxawaay jëm ci suwaawu candidat benn bokk yaakaar a kaay ne neexul ba neexul waaye waa parti jamono ji kenn xamul daal ci yan tànk la ñuy feccee loo ko yéen kaay giir wàll fu quotidien xëy fësal leneen itamit loo xam ne yéen kaay giir di direct news yi ne Sénégal mu ngi daanaka ñu ngi ñetti fan yoo xam ne daanaka amuñu gouvernement mm-hmm. président Macky Sall jël dogal kon daal di euh, ministre yi waaye gis nañ ne booba léegi moom président Macky Sall taxawul gulu gouvernement bu bees tax yéen kaay gi di suñu xëyte ji daal di ci amal ab taxaw seetlu moo di Modou Fall borom dëgg bëgg mooy fexe euh, ba jox seen candidat bi di Amadou Ba lu si tolloog juróom fukki junniy parrain noonu la ko yéen kaay gi direct news xëyee fësal yéen kaay bi di le peuple ko ci gouvernement bi di ñëw yéen kaay gi ne euh, ban ministre moo war remplacer beneen ministre. xëy fësale mais ak lu si mëntaam nañ jàpp ne kii di Samba Ndiobène Ka mën na am promotion daayi mën nañ ko tabb def ko mu doon jëwriñ nga xam ne ñu dénk wàllu agriculture wu dafa Aly Ngouille Ndiaye maître Oumar Youm dafa fas yéene dellu si waat Antoine Félix dañ ko fas yéene jëlee euh, ci ministre de l'intérieur ko directeur de cabinet bu président Macky Sall waaye tamit euh, daañu taxawal ab ab maanaam ab ministère chargé des élections euh, Thérèse Faye nag am nu mu demee daañu ko tabb def ko ministre noonu la ko yéen kaay gi la ko xëy fësale parrainage dëgg moo wóor Modou Fall neen daal mooy jox Amadou Ba lu solo bon fukki junni ci ay parrain assemblée nationale bi ñu ne daañu ko fas yéene ubbi mu nekk nag ab ubbite goo xam dana yëngu lool am lay euh, ndax yëngu-yëngu yi nga xam moom la ñu nemee ko ci groupe parlementaire coalition Yewwi Askan Wi coalition Benno Bokk Yaakaar ba ci coalition Wallu gaa daal nee na ñu ngi jëm session boo xam ne loolu du euh, maanaam du du neex maanaam euh, du sedd lool mhm. noonu la ko yéen a kaay gi sur côté yi nga fis yéen a kaay bi di source waaw yéen gi source xëyee dellu si waat ci lu jëm euh, ci Ousmane Sonko bi nga xam ne ni ni ki alxames ci la juge bi fas yéene àddu jëmale ko ci mbiram loolu kon eh, waaye ndaw la koo xam ne du yoon gars ko yeew buum muy jaar euh, moom mi nag juge boo xam dafa indépendant nekkoon na fële ci Koungheul ba mu génn Koungheul daanaka askanu Koungheul yëpp ñoo ko doon sa tàcc di ko sargal nga xam moo di moom la sax bokk na ci décision yi mu jëkkëral bañ ko bee fële ci diwaanu mooy bàyyi mboolem euh, détenu politique yi nga xam ñoom lañ fa tegoon loxo kooku nag moo fas yéene addu ci mbiru Ousmane Sonko alxames gii di ñëw lay doon. donc l'info lam ñu jukki. yéen a ngi di l'info ne président Macky Sall yëkkati na ay kàddam daal di saako ci waa science. ñu góorgóorlu daal ba jafe-jafe yi nga xam koy dund jamono ji sa wopp di wopp di cancer ko teg te muy far saa su ne doomu aadama yi daal ñu jëm si jël ay matukaay ndax daal gis na ne seen yaakaar daal daanaka scientifique daal la wékku ngir mm-hmm. ñu mën a daal saafara jàngoro ji nga xam maanaam ñu maanaam di daal ñu mën a trouver Euh, saafara si nga xam moo mën a jëlee fi jàngoro ji di cancer noonu la ko yéen kaay gii di lay foo xëy fësal euh, dafa xëy jël kàddu gi jox ki nga xam moo di Olivier Corden mhm. euh, moom nag chercheur la nekk tamit koo xam daanaka xam-xam dafa ma ci wàllu droit international ma ngay wax nag taxawaayam jëmale maanaam ma ngay jox xaatam ko ci crise yi nga xam ne ni Euh, moom lay am fële ca Niger ak it CEDEAO taxaw gi ñu taxaw ne mu ñu deful ndànk dañ fi ay takk der ngir jële nguur ga ci loxo yi mu ne noonu la ko yéenekaay gi Dakar moom lu mu ñëw jukki Boulaye Dia dugalatul gi moo xëy fësal lu ni mel euh, dontel sax am na yaakaar ci moom ci jamante xarite gu war a dox ci diggante Sénégal ak ak Cameroun waaye li wértu daal moom Boulaye Dia moom daanaka xarañtu daal ci devant les noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale ndax ba euh, saison ubbi ba léegi dugalu lu may benn bi noonu la ko yéen a kaay gi Stade xëy Fatou Abdoulaye. yéen a kaay bi di suñu lamb. guy gi la goo xam ñu ngi koy waxtaanee jamono ji. Mm-hmm. moom Ada Fass nag gannaaw mu daanee sos jël bu amul benn werante gars yi daal fu mu toll a jox guy gi. Mm-hmm. guy gi na daaxul benn mbër waaye na fekk nañ ko fay lu ko jar. Euh, moom yi nag di Zalba joxoon na waxee nag xalaatam jëmale ko ci ko Ada daal Ada Fass nag gën a yokk entraînement am. Mm-hmm. waaye mu xool bu baax baax fu muy fréquenté noonu la ko yéen a kaay gi suñu lamb xëy Fatou Abdoulaye euh,